ñoo fi teew te jëmmal jataay bi nuyu suñu Fallou Ndiaye li nga xam ne ni moom lañ seqal jataay bi ñuy modéré jataay bi ak sew sëriñ imam Cheikh Cheikh naa ma dët ci kàddu yu am solo yi xam ne ni jàllale na ko mu ci liggéey ci sëñ bi jàngalee ak sëriñ Cheikh naa nga xam ne ni moo war a ñëw ci suñu kanam defe naa ne bu ñu xoolee lislaam dëgg-dëgg bokk na ci li koy wutale ak yeneen diine yi mooy nim joxe yitte ëllëg te mooy àllaaxira noonu la joxe yitte dunduk àddina gi ñu nekk bokkut ak yeneen diine yi nga xam ne nii dañuy xool sa wàllu biir rek ba fàtte fa sa wàllu àdduna waaye moom dafa boole ñaar yëpp moo tax mbokk ci li siiw li ñuy jàng ci lislaam mooy ne boo nekkee ci àdduna da liggéey ba mel ne dootoo jóge àdduna mukk waaye tam boo jubloo sa digg ak borom noonu nga cee demee ba mel ne suba wala ba doo doo yenn wala doo fanaan wala boog daal léegi nga jógee ci àdduna bi te defe naa liggéey bu mënti doon nag eh, bu ko ragal yàlla lalee dana mën a jaar fa mu war a jaar moo tax sëriñ bi da am laanu sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee ci dégg gum dégg lislaam ci dégg bu xóot moo tax moom ci njàng leen mu dal di boole wàllu ruux ak gu yaram. soo nekk ci ndaw mësoo dem retraite maanaam dangaa liggéey ba xëy làqu àdduna kooku kon bu ñuy jëmmal liggéey defe naa ne jëmmal na ko façon bu mel bu mat sëkk te loolu tamit saasam moo ko jàngale moo jàngale ne nit bu xasee nekk ci kaw àdduna li fekk yaa ngi mën a yëngatu war di yëngatu li fekk yaa ngi mën a liggéey da ngaa war di liggéey retraite xëy na ñeneen ñoo ko xam waaye ci lislaam ak njàngale bi Sëñ Tuubaa amul tekk laxasaay foo toll da nga war a nekk ba keroog nga fiy jóge wala nga dem ba tëli bi jàngale na ko yi ne leen kuñ ci waxoon ci yéen ne leen sa digg ak faatu as caa moo fi des ay minutes wala ay waxtu yu néew moo tee nga faatu wala boog ay minutes yu néew moo tee nga faatu nee na bu fekkente ne yoroon nga jëmbatu garab sa loxo na nga fexe ba jëmbat ko bala ngaa faatu loolu mooy ne kon nit amul lu muy perte ci liggéeyam si amoon faatu nag jëmmal na loolu ci niñ ko jàngate ci moom ci teel a tàmbali liggéey te bàyyiwu ko ba ne mu xëy làqoo loolu njàngale mu solo danañ ci jàngeen ne ku xamoon diggante fàggulu lew la ak dajale xaalis liggéey ak dajale xaalis dañoo jege lool ba ñu bari mënuñ koo ràññee ñu bari dañoo jàpp liggéey mooy dajale alal te dajale alal ak liggéey bokkuñu suñu soxnaa ñëwoon na ci liggéey boo ci la koy jëlee ci noo ko war a doxal samul fas nag teel naa xam ne kon liggéey moom farata la ak jaamu yàlla la waaye dajale alal nag leneen lay jur moo tax bu ñu xoolee koo xam ne nii sa vie active wala boog sa liggéey at yi nga liggéey boo ko doon xool jege na juróom benn te at mu nekk produire nga ay tonnes yu baree bari ci wàllu xa gerte pepp yu mel noonu nga xam ne tey bu doon ci seen jamono ji bis ba fi bàyyi war nañoo xalaat ne war ngaa mën a bàyyi ay milliards waaye moom diir bi mu liggéey bépp li muy yàgg-yàgg gis nañ bi mu fiy bàyyi mën nañu wax ne bàyyiwu fi xaalis bàyyiwu fi benn dërëm boo xam ne ni dañ koy ton wala mu bàyyi fi benn kër goo xam ne ni bu ñuy wax la waaye kon li mu liggéeyoon lépp da koo delloo ci jaami yàlla yi te loolu mooy mooy sababu liggéey dëgg-dëgg mooy nga def ko fi nga xam ne ni moo neex yàlla delloo ko ci jàmm yàlla yi kon xamoon na ne tàqaloon na diggante boobu diggante bu am solo te xamoon na li alxuraan jàngale walladina ni yaknizuuna dahaba wal fidda ba aaya bi jeex ñi nga xam dañuy liggéey di ko nër compte banque yi fees dell doo ci sarxe doo ci maye doo ci dimbale kenn suñu borom nee na loolu bu ëllëgee dañ koy soppi ay soy soy ko ba mu xonq cooy ñu la koy ñaas ci sa kanam ak sa gannaaw sa digg yu mel noonu ak sa loolu suñ Fallu teel koo xam moo tax tàqale woon na diggante liggéey ak dajale alal kon ñi liggéey tam war nañu bàyyi xel ci ne liggéey ak dajale alal bokkuñ kon liggéey moom farata la boo xam nit daf ko war a def dajale alal nag suñu borom santaaniwu ko sëñ bi jàngalewu ko mag ñi fi bàyyi woon tam jàngalewuñu kon ñaari bind yooyu war nañ ko mën a jànge ci euh, doxalinu sëñ Mouhamadou Fadel ci wàllu liggéey mu des nag liggéey bi ci boppam ñu jàpp ne kon ci mën a yi yi mën a soppi ci yoon wi ci la bokk ndax njàngaleem sëñ bi danañ koy faral di wax ne am na loo xam ne dafa sax ay tawaabit yoo xam ne nii moom ay constant la maanaam du sax mënees ko soppi waaye am na ci yoo xam ne nii nag mën naa soppi fàggu lu lew nag jëmmi liggéey bi moom mënta ñàkk waaye yoon wi ñuy jaar ba fàggu ko léeg-léegi jamono mën naa ñëw bu fekkente ne mën naa soppiku ak mënees na ko soppi moo tax génération yi nga xam ñoom ñoo war a mën a jariñoo njàngaleem Cheikh Mamadou Fadil moomu moom ba ci tolloo mbay ku nekk gis na ci def kon ñi toll fii war nañoo xam ne liggéey moom mënta ñàkk waaye nag xool jamono ji ni ñuy mën a gën a développé ni ñuy gën a mën a avancé ni ñuy gën a mën a yokki liggéey boobu ba mu gën a mën a produire gën a yokk loolu it mënees na caa xalaat ndax dañoo toll jamono joo xam ne nii nit ku nekk sa maanaam wàccuwaay bi nga yor la la koy jox bokk na ca wàccuwaay ba nga am ci wàllu liggéey la ngay liggéey maanaam métier ni ngay liggéey day feeñ ci personnalité sa situation économique maanaam am am bi nga am léegi dafay feeñ ci ni ñuy natte nit ñi te loolu kenn mënut koo dàq dugg na ci nattukaay yi ba daanaka fi ne kenn mënut ko cee génn boo gisee tey léegi léegi xale yu baree bari wala boog ndaw yu baree bari di daw mbay maanaam personnalité bi la mbay di jox dafa dëppootul léegi ak personnalité bi nga xam ne yu baree bari moom lañ bëgg wane seen bopp am am bi ngay jëlee ci mbay léegi dootu la may nga occupé place bi nga xam moom nga bëgg a occupé dëgg-dëgg ci biir société ci biir dundinu xeet moo tax ñu bari du moo tax kon léeg-léeg ñu toog xoolaat nag yoonu bi ñuy wutee defe naa ne léeg-léeg dana am solo moo tax mbay moomu na ko Cheikh Mamadou Fadil daan defee mag njëkk ñi daan ko defee noonu jëmmi mbay mën na fee nekk waaye war na noo xool nuñ ko diversifier maanaam nuñ ko tasaare gën koo développé gën koo yokk ci misaal ñoom gerte rek lañ daan bay ak dugub léegi ku nekk xam nga ne dugub wàccuwaay ba amoon ci dugub doomu ci jamono yooyu amatu ko léegi maanaam ñi koy dunde léegi day gën di wàññi. gerte gi valeur ba ma amoon jamono yooyu amatu ko léegi moo tax ñi nga xam gerte dugub la ñuy bay ñaari seen am-am day néew lool te gis nañu am-am léegi dafa am solo ci jamono ji kon ñu war a gën a xoolaat mbay moomu nun koy gën a yokke mën nañ cee dugal façon mbay yu bari léegi agriculture dafa am horticulture am pisciculture am aviculture am xeeti mbay yu baree bari yoo xam ne nii mën naa gën a dëppoog jamono te la muy génne mooy ëpp fuuf xaalis mooy ëpp fuuf man-man la nga daan génne ci gerte ak dugub kon loola ñi nga xam ne nii fas nañu yéene sàmmoon ak loola war na noo gën a mën a xool loola léegi dem nañ sax bay wax li ñuy wax mbayum jën jën nga xam da koy bay léegi eh, ci mbay ci la ñuy dugal léegi kon mbay moomu di lu am solo waxoon nañ ko ci départ ndax li ñuy wax autosuffisance maanaam nga mën a yem ci sa bopp ni ko suñu seexoon naa doon waxee léegi bokk na ci li ñu ko mën a may mooy mbay mbay rek ci nga mën a sukkandiku ba doo jëggaani ab dund ñu gis nag ne kon ñi ngi dox jëm foofu te kilifa yi nga xam ñoom ñoom ñoo ñoo ñoo yor ndono loolu ñoom ba léegi ñi ngi dund ñi ngi dundal mbay moomu ñu ngi ciy yëngu ñu gis ne bu ñu leen orienté woon encouragé leen ci yeneen domaines yi xam ne mën nañ faa yëngu ci wàllu mbay ci lu gàtt mën nañu liggéey loo xam ne nii autosuffisance boobu dañ koy am ñu joxe ci misaal rek tey ni ñu yëngatoo ci wàllu mbay dugub ak gerte suñ ko orienté woon ci bay ceeb bi nga xam ne léegi li ëpp ci li ñuy dundee ceeb lay doon te ci lépp dañ koy jëggaani yaakaar naa ne buñ ci orienté woon kilifa yi ci mbayum ceeb at yu néew dootuñ jëggaani ceeb effort ba ñuy def ci xel koom di fa produire ay junni junni ton ci pepp wala yu mel noonu ak liggéey ba na muy taxaw bu fekkoonte ne orienté nañ leen jox leen suuf sa ca volet ba maanaam ca dex aménagé ko ba mu baax ñu jox ko kilifa yi yaakaar naa ni at yu néew danañ fa produit loo xam ne nii dootuñ ci gàcce. Cheikh Fallou. Cheikh Fallou. Cheikh Fallou laa. Fallou laa. bismillah. Cheikh Fallou.